voilà salaamaaleykum ASC euh, Mengo salaamaaleykum ASC ECCO donc euh, Guédiawaye Infos ñëw fii tey ci terrain ASC ECCO fekk si la fii seen nit ñi préparé seen final bi nga xamante ne nii mi ngi am fële ci stade Amadou Barry euh, bi mu nekk final bi nga xamante ne nii dox na ñaari ASC nga xamante nañ parce que boo xoolee daaw ñoom ñoo daje woon demi final ci période bi ASC Mengo daal di koy gagné donc ren ñu ñëwaat dajewaat final donc mu nekk benn final bi nga xamante ne war na nekk final bu neex muy finalu zone 1 bi nga xamante ni fii si Guédiawaye donc mu nekk final a metti ci ñaari ASC ECCO ak méngoo donc ñu jox leen rendez-vous si kanam tuuti tuuti ñu xool noonu naka la ñuy préparé seen final bi nga xam te ni mi ngi dox seen diggante ñi ngi fii ci terrain méngoo bi seet si leen fii seen préparation bi nga xamante ni mooy dox seen diggante ñoom ak ASC ECCO mu nekk ñaari ASC yi nga xamante ni mën na jàpp ne xamante nañ parce que daaw ñoo daje woon ci période bi ASC Mengo éliminé ko daal dem final ren aussi mu nekk seen deuxième rencontre ASC Mengo war a dajante ak ASC ECCO fële ci Amadou Bari le vendredi samedi 21 donc tey ñu ngi euh, ak coach yu Obain ak coach Ismaïla donc ñu fas yéene laaj leen quelques questions yi nga xamante ni ñu ngi leen nuyu maa di fay mm-hmm. waa euh, Guédiawaye info

ñu ñu ñu ñu perte ko mais ren ñun dañu soxla jël trophée bi kon faut ñu concentré wu parce que final fait la mais ñun ñi nek ñun ñi nek ci staff bi ak jury dañu wara concentré wu nek ci match bi parce que match kenn duko jouer avant kenn duko jouer après c'est au moment présent lañ koy jouer

waaw bon ñun moom xamante nañ suñu biir quoi dama ba may wax ni ñun yàgg nañu jouer suñu biir boo xoolee sax équipe bi sax amul sax ay joueurs yoo xamante ne dañ leen jënd wala fi suñu booy suñu booy koñ yi suñu doomu dëkk ñooy jouer parce que ñun comme la ko waxee ñun saa yu nawetaan jeexee dañuy organiser benn benn championnat bu tudd méngoo suñu championnat mhm. dañ koy jouer fii pendant ay ay 4 ba cinq ba 6 mois fooy fii nii la ñuy traité joueurs yi nga xamante tey ñoom ñoo war a joué tey fii si nawetaan bi mhm. soo xoolee tey si ñëpp suñ suñ suñu doomu koñ lañu mhm. la ñuy nekk di liggéey avec sérénité discipline concentration ak rigueur mhm. du ñu naxante football moom amul écho amul laaj football moom si entraînement la boo demee terrain li nga entraîné nga wane ko foofu noonu ñun loolu mooy suñu slogan loolu mooy suñu philosophie li nga entraîné nga wane ko noonu léegi coach bu ñëwee ci ah xam nañ ni yor na ay joueurs yu expérimenté comme ay Pascal ñoo xam ne ils sont expérimentés mais ñun aussi on a un groupe on a des joueurs jeunes mais dañu am groupe foofu la ñu ñun foofu la ñu accentuer mooy lan dañu fexe ba am benn groupe boo xam ne dañu dynamique xam nga rek parce que soo xoolee ECCO c'est une équipe joueuse ay joueurs yoo xam ne lañ dañu am expérience ba pare dañu wóolu seen bopp mais ñun tamit suñu fort moy on a un groupe bo xamné xam rek son boy dañu homogène quoi moy lan tactiquement écho on va le surprendre parce que football c'est un jeu collectif motax ñun collectif bobu lañ gëna a gëna accentuer ci lañ gëna a am gëm-gëm té aussi collectif bobu dina tax écho euh, ñu jëm ko euh,

équipe yi bokkul. voilà coach euh, ñuy dégg ci gars yi ñuy wax ñu ne euh, ECHO mooy favori si match bi est-ce que d'accord ngeen loolu. waaw dëgg la ECHO mooy favori ndax ECHO mooy équipe bu mag bi. Mhm. ñun ñooy équipe bu ndaw bi équipe boo xamante ne jëlagul trophée ñun jëlaguñu benn trophée depuis 87 la ñu koy jël trophée ba léegi. mais est bi nga xam te yaa ko éliminé daaw. nga final daaw final est-ce que mën nga jàpp ne moom mooy yaay équipe bu mag bi ndaw bi si kanam. non ñun moom incha allah ba fu ñu dem ECHO mooy équipe mag bi ñooy équipe bu ndaw bi ñun dañuy ñëw topp seen ginnaaw rek ñoom ñu dirigé ñu topp seen ginnaaw. voilà est-ce que si côté plan médical équipe bi pare na. waaw sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. équipe moom pare na sur tous les plans wax dëgg yàlla. muy médical muy physique muy concentration équipe bi pare na. ñun daal lenn mooy moo des. muy jour bi jot incha allah rabi ñu ñaan yàlla yàlla bàyyi bàyyi ñu fi ñëpp. ñu am tal ak fekkee wér gu yaram ba dem jouer daal suñ demee incha allahu rabbi ah waaw dina leer. voilà yow coach eh, boo am benn message bi nga xam yaa ngi ay ses écouté ban message sur les supporters sur la non violence. waaw mooy écho euh, sax ku xam-xam ni.

dañu dégg voilà ECHO dañu dégg Mengo dañu dégg mu nekk ñaari ASC yi nga xamante ne mën nañ jàpp ne ñoom ñooy les meilleurs ASC actuellement ni ci zone 1 bi nga xamante ni bu ñu war a jouer mu sama début wax rek que ñaari ASC yu xamante parce que daje nañ daaw ñame nañ daaw ren aussi dañuy ñemewaat fële muy euh, ko fii xool ndoka lañ si préparé seen match bi nga xamante ne moo dox euh, seen diggante ak ASC ECHO muy vendredi 21 fële si stade Amadou Barry donc euh, capitaine ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay di leen euh, masaw ci déplacement bi ngeen def kontaan nañ trop match bi daal moom xam nañ ni jëlee nañ ko au sérieux et nag suñu adversaire la respecté nañ ko trop. la fois passée demi-finale lañ ko éliminé moo ñu xamal final. parce que toog nañ 30 ans ñoo leen final ci école lañ xamee final. mais li ñu mënti xam daal mooy équipe bi ñëpp suñu ginnaaw quartier bi bàyyi ñu bàyyi ñu benn yoon ñun daal. préparé wu nañ ñu ni ñu war a préparé ñun ñëpp. voilà préparé wu nañ ngeen war a préparé est ce que tey mën nañ jàpp ne tey match bu doon suba suba suba pare ngeen. waaw bu doon suba suba pare nañ bu doon tey ñu ci kanam tuuti ñu ne 19 heures pare nañu. Hmm, voilà est ce que côté mental naka ngeen ngeen ak yeneen sa groupe en tant que capitaine naka ngeen si côté mental. non mentalement moom dañoo pare hmm. parce que ñun le début ñëpp nañu équipe bi du dem fenn kon donc bu ma ne équipe maa ci mag ak keneen Lion ak Jack ñun ñetti ñoo ci mag li des ñëpp ay xale lañ kon donc ñun xale yi dañ leen jël teg leen suñu ginnaaw pare leen mentalement physiquement aussi ñu pare parce que dañoo am ay coach yu am solo Ischat Aubin Mendef Talla Cissé Jëwriñ Ñas dañ ñoo préparé suñu président tamit aussi Samba Sow waaw ñoom it ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw daal suba suba bu ñëwoon match bi pare nañu voilà xam nga leen ECHO nañ ko c'est la première fois ñu daje voilà parce que bi mu ñëwee tam ci zone bi deful quatre ans mais c'est la première fois ñu daje daaw wax naa la ko sànq ñoo ko éliminé demi final ci moom la ñu xamee final te ren tamit aussi ci moom la ñuy xamee coupe incha allah. donc mu nekk war a nekk match bi nga xam te ni vendredi la est-ce que aussi euh, mën na jàpp ne tamit match bi euh, comme ni ngeen jéewoon daaw demi final moom ngeen di final bi. waaw du doon benn nag mhm. parce que daaw ak ren du benn mais nag moom xam naa ni ren moom du yomb mais li ñu bëgg mooy yàlla may ñu ndam. naka ngeen naka ngeen di préparé nag benn message nga am boo xam boo ko doon passé si supporters yi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ASC e Mingo ak e surtout sur la non violence nag ban message nga leen di waaw non waaw violence du am non violence du am parce que xam nga la moo tax non violence du am parce que Eco ñoom dañoo civilisé ñun tamit aussi noonu la ñu mel ñun tamit aussi dañoo civilisé

fekk ko fi de passage pour ñëw seetaan euh, seen entraînement xool naka la ñuy préparé seen match bi nga xam te ne nii vendredi fële si stade Amadou Barry ñoom ak ASC ECCO donc euh, ngi leen di fay di rafet lu ñëw bi ngeen fi ñëw vraiment mu nekk initiative bu rafet donc euh, président ASC Mengo maa ngi tudd Samba Sow jiite équipe bi ànd seeg sumay collaborateur Euh, mu nekk équipe boo xamante ne euh, daanaka bariwul lu mu jël coupe waaye équipe bu siw la waaw donc euh, daaw ñu finalu ren aussi ñu finalu daaw nag ñàkk nañ ko waaye ren incha allahu rabi bu neexee suñu borom coupe bi incha allah fii lay fanaan si. voilà mu nekk ñaata at yaa ngi nekk président ASC Mingo. donc bon mois j'ai te dirigeant depuis. quatre-vingt-huit maa ngi nekk ci équipe bi mais occupé naa nag poste yëpp nekk membre zonal nekk délégué au niveau de l'ODCAV yàlla def nag ren jii lay soog a nekk président équipe bi waaw. voilà comme ni nga ko waxee nekk na ASC bi nga xam te ne ASC bu mag lañ ci ci Guédiawaye depuis bi ñuy tudd ASC Las Palmas. Mhm. donc mu nekk ASC bu mag tamit donc est-ce que mën nañ jàpp ne lan moo ne seen lan mooy problème ASC Mengo bi nga xam toog na pendant 30 ans mënuñ jàpp ne am na na ko. la moo nekk réellement problème ASC Mingo bon daanaka amul problème dafay fekk rek ni saa su ko yàlla tuddee la waaw euh, jàmm bi moom day sabablu rek waaye yàlla nag moom mooy dogal donc boobu ba léegi aussi euh, ku formé 86 87 nga jël coupe donc boobu ba léegi ñu ci topp di ci daw di ci topp di ci daw euh, yàlla def na entre temps ñu changé turu équipe bi mais n'empêche ñu ngi tuddee ASC Mengo des HLM Las Palmas donc Las Palmas ba léegi mi ci biir mais euh, yàlla dogalit ni woon daaw lay doon ñu yegg final dogalaat ne ren ji ñooy finalu yàlla mën naa dogal te ñu koy ñaan ñu jël coupe bi. voilà est-ce que ci côté finance mën na jàpp ne ASC bi pare na pour jouer vendredi final ak ñoom ASC ECHO. waaw ASC bi nag doon na ASC boo xamante ne euh, sur le plan financier euh, amul problème. ndax euh, ñuy dëkk ci cité bi ñoom ñooy génne koppar yi nga xam ne mooy jëm ci équipe bi ku nekk da ci participer nag du lu nu bàyyi ak benn nit moo tax dafa nekk ASC boo xam ne ku nekk da nga ci am sa mu à dire mais euh, saa su ne nag ce sont des décisions yoo xam ne dañ koy jël ci ay réunion waaw ba juboo ci ay kaddu ñu daal di daal di dérouler vraiment yëf yi daal di dem ci kanam. wala tay boo amoon ben message bi nga xamanteni ni di président ASC eco mi ngi jàkkaarloo di la seetaan tay ban message nga koy passer ak supporter yi nga xam ñoo nek eco waaw euh juste rek surtout euh président yi amuñu problème ñun ñep ben lanu ñoo jiite équipe yi chaque jour buñu démé demee stade ñooy toggandoo loge ñoy waxtaanandoo mais surtout sur le côté euh, supporter parce que équipe bo ci dem rek amna ci ñoo xamante ne kenn mënu len gérer. de manière spontanée la ñuy jóg di def lu ñuy def ba nga xamante ne ñu leen ci ñaax ñu dem ñu football ko dans le fair play et que le meilleur euh, aussi di leen xamal ni saa su nekk euh, arbitre yi nga xamante ni ñëw di arbitre match yi ay nit lañu mais ñu jàpp ne arbitre yi ñoom supporters ni ñuy gisee arbitre yi noonu leen waa zone di gisee wa donc mu nekk structure boo xam ne c'est autonome zone day bind rek ne match bi match bi match bi am na. Euh, euh, euh, arbitre donc nous bañ aussi vraiment avec ci arbitre que le maire gagne. voilà que le maire gagne donc l'homme dernier message bi nga président bi lancé donc ñuy aussi que le maire gagne aussi en tant que reporter donc mu un match bi nga xamanteni un japp de match bu revanche la ci vendredi et que le maire gagne.